dignité la grandeur la loyauté la parce que peuple boobu seen yëf nga yor kon boo leen déggee boo leen dégloo mooy da ngaa matal kóllëre gi dox sa digg ak moom bañ a a bokk bañ a def troisième mandat bu nekkee acte isolé yi ci des yëpp delluwaat ca problème ya loolu amul njariñ sama gis-gis mais mu tàmbali nekk benn dynamique dynamique mooy loo xam ni danga koy tàmbali di ko topp ba ba ca ba fa mu jëm man defe naa ni lu nit ñàkk-ñàkk xam-xam ñàkk-ñàkk seetlu ànd nga ak président Ousmane Sonko àndoog moom Pastef nga bokk wala bokk bokkoo ci di nga nangu ni candidature président Ousmane Sonko demande sociale la demande sociale mooy loo xam ni ñi la jox réew mi moom ko mandaté la fal la nga leen di liggéeyal ñu di la fay salaire ñoo taxaw ni nangam lañ bëgg déclencher dynamique gu jàmm di ko woote ba pare seet demande sociale bu toll ni candidature président Ousmane Sonko nga ne du ma ci d'accord damaa defe ni loolu am na tuuti safaanoo ak wane ni euh, jàmm la ñuy wut ñu